rek il est ak Mamadou Lamine Diallo moom nag mu xamalee ko rek ci compte Twitter di xam ni CMGA Wade moom nag fi mu nekk ni génne nañ ko ca poste ba mu nekkoon nekkatul foofe général d'armée ginnaaw communiqué bi nga xam sax na présidence mu mel sax bi communiqué bu nekk jëm DIRPA jóge sax DIRPA ci nag 31 euh, mars bi lee mu mel ni loolee sax moo indi nag mel rek tamp la ngir mën koo xam ci biir armée nationale bi lee wala itam lu aju ci ñetteelu candidature yu Macky Sall moo wara lu nu mu mel ni sax mbir mi kon nag lu doy waar la war nañ ko mën a saytu bu baax a baax muy ay kàddu kilee di Mouhamadou Lamine Diallo. abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ngeen jàmm ay xibaar